kon man ci ndigalal sëñ Mouhamad sëñ Amsatu mii ma leen di wax ne ndigal ndigal jóge na ci sëriñ bi sëñ Mouhamadou Mountakha jox na ndigal am Amsatu mii mu ànd kook mboolem koo xamante ne da liggéey ci xaside yi ñoo xam ne bés suñu kanam bis boo xamante ne dañu fas yéene yëngu ci xaside yi delloo lépp sëriñ Touba ndax sëriñ bi mooy xaside yi